alhamdulillahi wasalaamaani ala xayri xalqihi sayidina wa mawlaana muhammadin nabiyihi wa ala aalihi wa sahbihi wa xadiimihi wa man tabiahum bi insaanin ila yawmi diinihi ama ba'd asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu أيها الإخوة الكرام البررة نحييكم باسم الخليف شيخ سيدي سار ابن سرين محمد سار najali siiradan abadan mu ngi leen di nuyu lu bari ci tuuru sëriñ Sidi Sarr mii xalifab Cheikh Ibrahima Sarr ci jamono yi nu toll boole ko it di xalifab sëñ Mat Sarr Mouhamadou Sarr mi nga xam ne it mooy xalifab Cheikh Ibra Sarr daf nu fee yebal jox nu kàddoom ngir ñu nuyul ko te santal ko te gërëmal ko rakkam sëriñ Xalil Saar ak rakkam sëriñ Muhammadu Mamun Saar ak rakkam maam Cheikh Ibra Saar ak seeni rakk ak mboolem ñi fi daje ci bokk yi ak taalibe yi di leen xamal ni maanaam ak ay cantam mën naa am ab tàmbali waaye ab yamuwaay moom ak cantam amu ko sant na gërëm na tam ngi ñaan fu mu toll tawféex waxoon na ni it nañu ko santal waa daayira bi nga xam ne daaw ba ñu màggalee màggal gi ba noppi joxoon nañu waa ja sant luum ñeenti junni nee na ñeenti junni yooyee egsi na ci loxoom dolli na ca sax nee na ñaari junniy boppam ah, bu fekkonte ni bii nag du kàddug sëñ siidi saar gi nga xam ni dafa ma yónnee woo ma dikk mu ni indil sa wata ma indi ko mu def ci ab gaasuwal def ci ñu bare bare bari danoo am nag ay ndog ci yoon wi moo nu tax a guddee bu dul woon kàddu googu laa majaala lii fiiha sa dawr al mubaarak si allasi e, aqaamaha hafadatu cheikh sëriñ Sarr ñi ko daje ñi ñi daje organiser ko amal ko ñooy sëti cheikh Serigne Sarr yi ak sëti bokki cheikh Serigne Sarr yi ñi mu bokkal baay wa ama man wax dëgg ci sëti cheikh Ibra Sarr yi laa bokk foofa laa waran a waxe waaye fii kàddug sëñ bi ma indi rek moo ma may ma ma ma toog fi moo tax guddal du ma ci fekk wax dëgg yàlla damay ubbi rek waaye am nañ ñu ñu préparé pour ñu taxawe taxawaayu maanaam cant gi nga xam ne moom la sëti Cheikh Serigne Sarr yi woote fii am nañ ku ñu euh, jox seen kàddu ngir mu santal leen ah sëñ Sidi Sarr nag am nanu lool mbégte ci moom palaas bii nga xam ne moom la toog mate na ko lool ndax ñépp la ëmbal jàmm ñépp la yéene aw yiw ñépp la jaboote amu ci xeej amu ci seen lii ngeen di def nag nee na am na ci mbégte lool bu fekkoonte ni bii moo mënoon a ñëwal boppam toog ba suba mooy dikkal boppam wane ci liy mbigam ndax moom képp ku toog di ko waxal ku mu doon na la wóor wóoral yàlla ni ak loo jotal jotal bu toogoon dina wax loo xam ne lii yow doo ca egg waaye dal na ngeen xam ni am na cant am na ngërëm lu mu jëme ci yéen loo xam ne lii am na tàmbali waaye amul ab yamuwaay ca gàttal lii laa noon naa ñëw ubbi wax ko ak it xamal leen ni moom mooy xalifab sañ mat saar mi nga xam ni mooy xalifab Cheikh Ibra Saar ginnaaw bu Cheikh sëñ Modou Saar wéyee nag Cheikh Serigne Saar moo ci mag bu koo ko wéyee Serigne Mbacke Saar bu wéyee Serigne Fadilu Saar bu wéyee sëñ Moor Jaara Saar noonu la googu bokk deme di leen nuyu bu baax itam ci turu sëriñ Abdou Latif Jenn ndax mbooleem ñuy sëti Cheikh Ibra Saar yi tey moom la yàlla dogal mu mag ci ci turam ak ci turu sëñ Cheikh Abdoul Halim rakkam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu asubillahi min asheytaan alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala asrafil mursalin sayidina muhammad nabi lummiyi wa wa sahbihi wa xaddimihi wa sallama tasliman bokki jullit yeeg taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen balu àq di leen bal àq nuyoo bi ak siyaar bi ñu ngi ciy jiital sunu sëriñ di sunu kilifa muy sëriñ Cheikh Khalil ñu ngi koy siyaar te di ko ñaanal saa borom gën koo yàggal te gën koo wéral ñu ngi siyaar it sëriñ Mamoun Sarr te di ko ñaanal ak njabootu maam sëriñ Sarr gépp ak sëriñ Song bi mu toog di ñaan saa borom gën leen a yàggal gën leen a wéral barkeb Seexul Xadiim ah kàddu yi nag ñu ko yëkkati ci kàddu yi ndigal yoo xam ne mi ngi tukkee ci njabootuk maam Serigne du saari muy doom ak sëtam yii ànd ak ñun ñëw fi tey ñu jox nu ay kàddu muy kàdduy cant ñu jëmale ko ci kilifa yi toog di seeni kilifa ci cër bi nga xam ne yëkkati nañ ko teg ko ci seen loxol maam muy cërub maam Serigne Sarr ñu teg ko ci loxol maam Serigne Modou Sarr kon dafay mel ne li wolof naan dañoo delloo buum ca boy boy sëdd yi fi teew yépp ñu ngi sant ñi ngi gërëm ñu ngi rafetlu cër bi ndax dara dafa ëppul ci ñoom ci lu dul ñu yëkkati cër bi mu leen teg ko ci seeni loxo kon ñu ngi sant bu baax di gërëm ni ko bàyyi Cheikh mi waxe léegi bañ fay jóge Serigne Sidi Sarr kaddu yi nga xam ne yëkkati ne ko joxe ko ci mbooloo mi ñu joxeel ko ko mooy canti kaddu cant ak kaddu ngërëm ndax nee na lees fi taxawee baa ñu jëf ko fi jëmmam jooj yi la war ma waroon fee teew ci jimmu waaye waroon fee jëf ci kàttanam waaye ndokk bañ ko ko defalee ndax ñi woote bis bi wooteel ko maam Serigne saar lañ ci jëf moom lañ ko jëfal ndax moo fi maam Cheikh Ibrahima Sarr tey cër ba mu yëkkati jox ko it maam Serigne Modou Sarr moom lañ ko jëfal ndax moo fi xalifa maam Serigne Modou Sarr tey comme nee na ñaari cër yooyu ngeen teg ci loxoom Serigne Sidi nee na mi ngi leen sant bu baax di leen gërëm. te di leen ñaanal saa borom gën leen yàggal gën leen wéral bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wasallam barkeb seexul xaddim sët yi fi ñëwit ñu ngi sant bu baax comme ni ko Baye Cheikh lime léegi ñu fi teew ñépp ñu ngi sant ñu ngi gërëm ndax nee na lii rëy na ci ñoom lool te buñ sañoon dañ fi yendu luñ fi war a def ñu def ko fi luñ fi war a wax ñu wax ko nee na ñu ngi yëkkati ak cant di ko teg ci loxol sëriñ Xalil mu jotaleel ko mbooloo mépp ñu nit ñu ngi sant bu baax di gërëm ndax waa kër maam Cheikh Ibrahima Sarr dañu jox cir boo xam ne man noon wax sax yellawuñ ko ndax noonu ab taalu bi rek la ndax sunu waajur ab taalu bi rek la woon ci kër maam Cheikh Ibrahima Sarr xaritoo woon na ci kóllëri loon ci donte daaru xuddus la woon daanaka foofu rek lañ ñu xamee ba léegi it suñu màggalee kër maam sëñ Moodu Sarr lañ ñuy fekk suñu xarit sëñ ab Samad Sarr saar lañ ku jóge suñu sëriñ fa la ñu yendu ba ngoon wala ñu fanaan fa kon loolu ab cër la sëriñ soxna bii muy toog it kóllëri gi suñu digg ak moom fañ nekkoon mu fekkunu fa saa yi nu gisee la muy jëkk def mooy mu reenu tàpp suñu loxo nuyu te ñun ñuy taalibe bu xeebu kon ñi ngi ñaan ci doole Cheikh Ibrahima Sarr njabootam gi yal nañ fi gën a yàgg te gën a wér sang bi fi jóge léegi muy Serigne Ganda ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax ndax référence la ci ñun dañuy déglu waxtaanam ci ni muy dëggoo ni muy waxtaanee ci Serigne Touba ak ni muy dëggoo ci wax nit ñi dëgg ba dañ ko ci roy ci jamono jii ñu toll rawati ci ndax dafa am lu bàyyi mu Ka wax ku naan Serigne Modou Khady mbàkke dafa mas a laaj Touba ne ko li tax ñi njëkk a muritoo Touba mel ne ki weer ñii mujj ñëw mel ne biddiw te Mbacke yaay jant ko leeral yaa ko yaa ko raw sëñ Touba ne ko laaj nga loolu ma laaj toojal dees na la tontu sëñ Touba ne ko ñu jiitu woon danoo jógoon ngir yàlla ñii mujj ñëw di roy ci ñoom ngir yàlla. yee naaru góor fu ñu toll dañ daa jaaju yii fas di bëgg ay egg ngir faj aajo yële murit xamul woon luy barke mu haajiri la woon fa mbàkke yile murit fi axiru zamaani bëgguñu lut barke amul imaani sëñ gànn dugg na ci domaine boobu léegi koo gis ma ngay dara jaw ma ngay wate kàttana ko man ak mbu mu mën a jàng xasaayit moo ne sëriñ bi dafa am barab bu mu daa jàngaloo ci njaareem ak ñu di ko daa jàngal du ko ko neex yëkkati xasaayit ku ko neex toog wax déedéet genn kilifa gu ma sa tëggoon ne nañ ko tudd xasaayit gi baa gii la tudd genn kilifa gu nekkoon ci muhaajiriin yi ci kër Seexul Xaddim kenn mësu koo ñeme sëñ Tuubaa nee na ñooñu muhaajiriin lan woon fa Mbàkke waaye yi le murit fi aaxiru zamaani bëgg ñu dut barke amul imaan wa saabixoona saabixoona doy na yàllaa ko wax ci alxuraan dëggal na ulaayikumul muqarraboon fi jannati nahim saabi xon yooyu nga xam ne dañoo jiitu woon danaa fun raggoroon Sëñ tubaa ak fun ko tegoon ndax dafa am Sëñ Tuubaa lu mu leen daa wax ci boppam ak lu mu leen daa leeral ci boppam ba loola ñuy dox ñu ci waxtaane ba jamono ji loola lañ jàppoon Cheikhul Khadim nga xam ne Sëñ tubaa daa amoon dimbal te amul lor te képp ku bëgg a dimbal te amoo te amoo kuy dimbal te amoo lor nag foo mën a nekk fu nekk des na la fekk Sëñ tubaa dafa wax ne nit ñaar la al insaanu isnaani albarru wa fajir fa ma albarru fa in xadarta ala an taf ala mislo wa illa fattabi li yutik fadlihi sëñ Tuubaa daf ne ki yàlla baaxal ak ki yàlla dëngal ci coobareem yuddi lu man yasha wa di man yasha ki yàlla dëngal ak ki mu baaxal ki mu jubal sëñ Tuubaa ne ki yàlla jubal su dee ne mën ngaa def na muy def ci njub roy ko ca soo ko mënut fa tab yu ko toppali yu tii ko di faddali ngir may la ci ngëneelam kon de topp lu baax te ko topp ko baax donte mënoo la mu mën ci jaamu yàlla dana tax nga am lu baax fa tab yu li yu tii ko di faddali nee na ki yàlla baaxal boo mënta jëf li muy jëf ci mbaax na nga ko topp boo ko toppee dana la def dana la may ci ay ngëneelam wa amal faajir ki nga xam ne saa borom da koo dëngëri ci coobareem fa in raaytahu boo ko xoolee fansur fi nafsika wa in wa in raayta fi nafsika ay ban mis la ay bii futub asal ay bu taw soo sëñ Tuubaa ne yàlla dëngal ci coobareem bala nga koo wax dara danga nga naan jàkk na mu dëngam nga mel nga xool sa bopp ndax dëng googee mu mel niwut ci yow bu nekkee ci yow nga tuub dëng nga tuub gu sell te bàyyi jaabur ñaari yooyu daanaka jafe ne ci jamono ji topp ku baax ak maandu ci ku yàlla dëngal mu wëlbati ko leen wax nit ñett la al muhassam wal mukarramu wal maxruur ki saa borom màggal ki mu ki mu teral ak ki mu dëngal sëñ Tuubaa nag yàlla màggal màggal ko fahsim u ki mu teral teral ko fakrim u waaye ki mu dëngal suturaal ko fastur u li anna allaha tabaraka wa taala allima xab yi wa satara wa saa a xam ay bon borom te du ko dëdd ko kon liy dox ci jamono ji léegi dafa mel ni sutura bëreetut suturaal jëmm bëreetut jox nit jëmm ab cër te yàlla tax bëreetut suñu toor wa an yuhibbali ilaahi sil anaam shaxsan wa yëpp da loolu laalil utaam nit ki da nga koy bëgg ngir jëmmi saa borom waaye boo koy bañ bañ ko ngir jëmmi yàlla loolu suñ tubaa wax waaye wa ahbibil mu'mini lil imaani wa yabxidul kaafiri lil kufraan jullit bi nga bokkal diine da koy bëgg ngir li ngeen bokk rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sang bi fi jógee wax na ko léegi sëñ Tuubaa yooyu mu wax ba noppi dane mi ngi ko jëmee ci xarit bu sell bu yewu muy Cheikh Ibrahima Sarr ku xarit bu sell bu yewu allaaxi sakki la wax kon Cheikh Ibrahima Sarr ku xel la woon ku yewu la woon waaye ku sell la woon sëñ Tuubaa nag bi muy wax xarit googu xam nga man mbokk googu bi ko sëñ tubaa wax waxu ko ci bokk ak mbàkkeek ak Sarr déedéet allaaxi sakk yi bi ko suñ tubaa di wax mbokk mu sell moomu da ko ko waxi ci lislaam ci diine moom innamal mu'minuuna ixwatun mu ne Cheikh Ibrahima Sarr day jëmm la ju sell te yàlla wax inna lisina amanu wa amilu saalihaat tuubaa lahum husnul maab ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla tey sell ndax mën nga gëm te doo sellal mën nga gëm di jaamu yàlla te doo def lu baax waaye boo bàyyee tere saa borom yi yaa ngi ci lu baax imtisaala am rabbi yi wacci naa bu nax yi nekk ci ndigalam yi te bàyyi tereem yi booba yaa ci lu baax kon jëmm ji nga xam ne moo fi tax a teew bokkoon ci muhajirin yi ba nopp bokkaat ci ansaar kon maam Cheikh Ibrahima Sarr dafa boole ñaar ci muhajirin yi Sëñ Tuubaa waxoon ne àndoon ak moom démb ñoom xamul woon luy barke dañoo doon jihaad ànd ak Sëriñ Tuubaa ni ko waa yonent bi sallallahu alayhi wa defee woon bàyyi seen dëkk bàyyi seen i njaboot bàyyi seen alal bàyyi seen lépp gàtt nag àdda Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jëm Madina fekk fi waa ansaar bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo àndoon ak Serigne Touba walbatiku nekkaat ci waa Ansaar teeru Serigne Touba niñ ko waxee léegi Serigne Touba wax ne ci jasaaka Serigne Touba wax ne yow de day Cheikh Ibrahima Sarr ngërëm naa la ngërëm du dul dog na ma ko waxoon démb jëkk ngay dellusi ci man kon Cheikh Ibrahima Sarr Serigne Touba da ko gërëmoon démb. jëkk muy dellu siwaat ci seexul xaddim loolu suñ too wax ngërëm lii mën a gërëm gërëmoon naa la ko démb bu jëkk ngay dellu si ci man dellu si man mooy lan gis nga saa borom bu sàkkee jamono di fa yabal ay jëmm jëmm yooyu daam am ñu mën leen di booleel ca démb jëmm yooyee nag bu dikkee fii dañuy gisewaat fii àndaat di liggéey kon maam Cheikh Ibrahima Sarr dafa bokkoon ci jëmm yi àndoon ak seexul xaddim ca laa ut ci arwa ci ruur saa boole woon koog moom mu ñëwaat àdduna Cheikh Ibrahima Sarr di doxaat ba dajeeg Cheikhul Khadim muy ab dellu siwaat ci moom dellu si benn bi mooy soxna Fatou Dia Touré bi ko sëriñ Touba joxe maam Cheikh Ibrahima Sarr ca waruwaay wam ko tegoon mu yóbbul ko ko ci yónneen bi mu ne ko kon gërëm naa la ci yónneen bi ngay dem te del séegoo sëg dellu si ci man ne ko nag xamal na yow Cheikh Ibrahima saar gërëm naa la mu ne ko xamal ni Cheikh Ibrahima Sarr gërëm naa la te maa ngi sàkku ci saa borom aji tedd ja natlubu min allaahil karim la ko wax an yashkura wa yahmuda sahiyanaa wa sahiyaka maa ngi sàkku ci saa borom mu tedd ma mu gërëm te muy sant say jëf ak samay jëf waaw jëfi Serigne Touba bu ne ay jëfam ak jëfi maam Cheikh Ibrahima Sarr na ko yàlla boole sant te sëñ Tuubaa ne li ma am lépp maa ngi ko am ci liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci la ko amee bañ tudde ko xaadim rasul nga xam ne tur wi nee na judduwaale wu ko bi muy dugg ci géej gi jëm jëm ginne ci la ko yàlla xamal ko ne ko yaay liggéey ko tub rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam allama ni rahmaanu fi safina bi annil qadimu sil madina mu ne kon saa maa ngi sàkku ci yàlla mu tedd mi an yashkura ba muy gërëm ak di sant wa yahmuda sahyanaa wa sahyaka samay jëf ak say jëf Cheikh Ibrahima Sarr waaw sëñ Tuubaa bu ne ay jëfum ak jëfi Cheikh Ibrahima saar na ko boole gërëm na ko yàlla boole gërëm ñu wax ne Cheikh Ibrahima Sarr de ak ru am la joxoon Serigne Touba mu yeggaleel ko liggéey bi kon cër boobu nga xam ne dugg na ci jëmmi Serigne tubaa muy liggéey liggéey bi jëf ju ca Serigne tubaa jëf danaan na ko boole yi ko yàlla boole ak jëfam Cheikh Ibrahima Sarr nangu ko an yashkura wa yahmuda sahyanaa wa sahyaka ne ko it na yàlla nangu waaye tax xàll ba xabal nangu na nangu naa wa xurbataka xooli sëñ Tuubaa li muy liggéey Rasuulu Laahi sallallaahu alayhi wa wa sixtu bi baaxin sixtu abdan lahu bii xaddiman li xayril xalqi bi mu si wa safi maay liggéey këtu Rasuulu Laahi ki sellal ko ak ak ak saxal ko liggéey ba mu ko liggéeyal ba noppi mu ne liggéey ba jëf ju ma ca am na boole jëfi Cheikh Ibrahima Sarr nangu ko mu wëlbatiku ne yàlla na nga nangu sama jaamu ak jaamu Cheikh Ibrahima Sarr te Sëriñ Tuubaa wax ne abatulaa salaasa alfa am xar la asi adama wa awaawal jaamu naa yàlla ñetti junni kenn sàkkul adama ak awa jaamu googu mu doon nag sama xor sama jaamu googu ak jaamu Cheikh Ibrahima Sarr yàlla boole ko nangu ci jë ci daraja rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon Sëriñ Tuubaa ak jëfi maam Cheikh ra Sëriñ nee na yàlla ñoom lay boole nangu jaamuk sëriñ Touba ak jaamuk maam Cheikh Ibrahima Sarr Serigne Touba nee na loolu la yàlla boole nangu waaye mi ngi koy nangoo ci daraja Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ak barkeb sëriñam yi nga xam ne ñooy ñu jëkk ñi ak ñi mujj Sëriñ tubaa boo waxee sëriñam yu jëkk ak ñi mujj te mu ne jaamono yàlla ñetti junni at ñu sokk àddoog sa sàkk aadama kon sëriñ yu jëkk ya dangay wax ne kon ñii la Cheikh Abdou Khadir Jeylaan sa Ahmed Tidiane a Abou Hassan Sassali ma wax ne ma shaayix yi Abdou Khari Jilaani wa Sassali wa Ahmed Tidiane kon nangul jëf yi may jëf sama digg ak Cheikh ma saar ci barket sëriñ yooyee nga xam ne ku ne topp naa sa ngir ba nga gërëm ma waaye nang ko nangu ci bi ma gënee àdduna ci saayir ñii nga xam ne xamal nañ ma araf te jàngal nañ ma ki ko mujj jàngal ci njaareem di sëriñ Tafsir Mbàkke Ndumbe da daa da daa Jolof di noor si bawal mi ngi yem ak sëñ Tuubaa ci àll wa la tajj danna naasa asada asada la ci la tajj danna asada naasa adaawatan li si na amano foofu ci aaya boobu la may ki nga xam ne moo gën a amul mbañeel gu tar ci ñiy jaamu yàlla te du jaamu yàlla muy yahudi yi loolu sëriñ Tuubaa wax loolu waaye yu doog a ñëw ci sàkk yàq lu Ibrahima Mawlaaka kon dañuy dellu ci nga xam ne dañ ne mu lan woon jamono dikk tey jamono dikk tey kon ni ko sang bi waxe ñëpp jóg am lu ñuy wuti ni ko Sëriñ Tuubaa waxe woon jaamu yàlla ak liggéey nit ñi nag bëgg nañoo dem àjjana te duñ jaamu yàlla waaye nit ñi mën noo bëgg am teraanga te duñu liggéey te loolu moo am ci jamono ji ku ci nekk defe nga ne la nga am yaa ko may sa bopp foofu la Sëriñ tubaa doon waxe muy jamono ji ñu nekk tey jamono ji ñu nekk tey kenn koo xam ne kenn koo xam ne kilifa ga nga war a joxub cër kilifa jox nga ko bariwul bàyyi mu sàkk na ko wu yoonu tarbiyaa ngi jooy naa noppi kenn defatul addiya faf ba noppi addiya jooy na nee na luñ may laaje gannaaw ba duñ ma jox boroom jumaa ji sa si jumaa ji booy na ngir watiir yi ak pakk yeeg médailles yi ak tiitar yi ca jamonoy Alaaji Fallu Mbàkke la doomi soxna def million ci banque amaan na koy def million ci banque te ma amuloon fukki dërëm fa mbàkke amaana kuy nay dawal watiir yi ca maam ma mës la am fasu par ci réew yi na koy tabax di sol médaille ya te maam ma mës ta lekk ay iddaaya loolu moo fi nekk léegi jàmbur bu jëkk ci àll ba mu xaalis tabax kër di togg lu neex ñu naan ko yow a yow a muy jàggar jàggar ci yoon wi du ci lenn loolu rekk fi nekk ñi nga xam ne Sëriñ Tuubaa gërëm ne seeni maam nekk fii te kenn topp leen kenn waxul jëm ci ñoom kon xellu dafay jot ci ñu xam riir mi nga xam ne riir na ak fu ko du ko ak fan la riir mi jëm lu ma taxam la dafa am beneen benn xar xam-xam bu bari xam-xam bu amoon benn doom bu góor benn bis mu doom ji ba mu ñëw mu ne ko dama bëgg nga dem jàngi xam-xam doom ja defaru takk ay bagaasam dem jàngi xam-xam ba mu jàngee xam-xam ba ne jeexal na fànn yi bi mu ñibbisee baayam ne ko nag ko dangay waaj dellu jàngi àdduna xam-xam nga jàngi woon waaye dangay jàngi àdduna mu ne baay bi wax damaa defee ne xam-xam su ma ko jàngee war naa ko mën a booleeg àddina mu ne ko déedéet dama jàngi àdduna xale bi xëy waaj wut ay ndoxam ak cereem gàddu mbuusam bi muy dox ba génn dëkk bi fekk yor yor bu dëgër mu dem ci genn garab toog di féexlu ndekete ci faxum wel kërug wel la jàkkaar lool am jenn jaan ju ju jóge ci wel gi di si di génn mu koy xool mu dem ba gisatu ko fi mu tëdd mel ni dafa fërbët bi mu yeewoo jaan ji di dellu si bi jaan ji di dellu si dugg ca pax ma dugg dugg mënatu ca dugg mu wàññee ko dem mu jël bigam bind ko ne lii de su ma demee sama baay danaa ko wax li am njàng la di dox ba àgg ci genn garab toog di féexlu ci garab gu naat ndekete am picc ngi ci kaw garab bi bi picc mi naawee garab gi dafa wow ba xob yi ruus mu di ko xool mu tong ci garab gu wow mu naat ba xob yi wert mu ne ah picc mi fu mu naawee mu mu ruus te fu mu toŋ mu naat daal koy bind ne dama ko yóbbu saa dox bay jub dëkk ba fekk ndox mu bari mu taa mu bëgg a xuus ci ndox mi mu bëgg a teggi ndox mi am ku ko ne boo ko teggee faatu xuusal ci ndox mi mu xuus ci ndox mi ba jàll dëkk ba génn dajeeg ndox mu tuuti mu bëgg caa xuus am ku ko ne boo xuusee ci ndox mu faatu teggi ko dañ koo xuusloo ca ndox mu bari ma ba muy dugg ca dëkk ba waaye dañ koo tere ndox mu tuuti mi ba muy génn ci dëkk bi mu bind ko doxaat tuuti gis génn lëg topp lëg gi di ko topp di ko topp ba jant bi soog mënta jàpp lëg gi mu ne ñetti mbir yi di dama koy ñeenti mbir yi dama koy yët sans bàyyi maaye mënatuma dem bi mu doxee wàññeeku fekk guddi jot ma fanaan bët set mu nu yëg waajuram baay bi ne ko ah, yow de teen ngaa ñibbi si lool lu xew mu ne ko damaa andi ñeenti mbir yoo xam ne lu ma ci teg rek dana ma jaaxal mu ne ko mbir mu njëkk mi moomu mu ne ko damaa dem ci wel toog ci garab di fiixlu jaan génne fa dem ba mu waññee koo pax mam duggoon mënatu caa dugg baay bi ne ko loolu mooy wax bu xasee génn ci làmmiñ duuti ci duggaat kon looy wax na rafet wa man kaana yu'minu billaahi wa yawmil aaxir fal yaqul xayran aw liyasmut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 mu ne waaw ndox mu tuuti mi nga xam ne ba muy gën dëkk ba bëgg ko xuus dañ ne ma teggi ko mu ne ko mooy bokk gu ànd lu ñu tuuti tuuti ba duggee seen biir ñu tonal la kon ndokk ba mbokk kii di mbokk maam Cheikh Ibrahima Sarr ànd bul sàkkoo topp yàlla te amul ngërëmul sa borom kër fa ay suma saw ju raddi an saw jëti raddi ya an xaar rabbaxoo bi nihmati borom kër day bu santee soxnaam saa borom gërëm ko malaaka yi gërëm ko yent bi sallallahu alayhi wa gërëm ko kon góor jigéen ñi góor góorgóorlu ci boroom kër yi ndax baay Moussa Ka dafa wax ci way wi ne donte borom kër ba day naan ba mandit te nga ne ci ay ndigalam ya yàlla gërëm yow da nga dem aljanna kon lu ñu mën a sàkku nañ sàkku ndigalul borom kër yi buñ bëggee am lu ñu yàlla dimbalee te mooy ngërëmul borom kër te mooy ngërëmul yàlla ñu ngi sant mbooloo mépp di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sëñ bi jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax sëriñ Touba Gueye ñu ngi lay sant bu baax waxtaan wi am na solo bu baax. kon ñu ngi leen di jégalu ci jataay bu yàgg bi mel na ne togaay bi yàgg na waaye lépp rek dabu dabu njariñ rek njariñ rek la ñu ngi leen di jégalu bu baax te di leen masawu coono yéen ñi nga xam rawatina yéen ñi nga xam ne yéen a jógee kër maam Modou Sarr euh, jóge ci Serigne Sidi Sarr ñu ñu ngi leen di sant bu baax it te di leen gërëm tey di rafet di am xel mu dal ci yéen ndax lii ñu bokk. muy Cheikh Ibrahima Sarr ku ne xam na ne yéen da leen cee bis bi sax da leen cee fekk waaye la ngeen ci daan jëf démb ak barki démb lépp rafet na kon ñu ngi leen di sant bu baax ñu di ñaanal ci seen barke maam moomu nga xam ne ñoo ko bokk ngeen ñaanal ñu lii nga xam ne dañ koo door suñu borom dëgëral ñu bañu man koo saxal ba keroog ñu fi jóge incha allah di sant mbooloo mi nga xam ne ñoo tënk jamaxatu Cheikh Serigne Sarr mbooleem ñi nga xam ne ñoo ko tënk ñi nekk Touba ñi nekk Mox-Mox ñi nekk Njaañ ñi nekk Touba su ma ci tuddee sëriñ Ousmane Diouf mi nga xam ne moo jiite foofa ak sëriñ Bamba Seye euh, rawatina nag sëriñ Galas Mbacke mi nga xam ne moom Cheikh Ibrahima Mbacke nga xam ne mbooleem activités yi ñuy dox ci jamaatu ca Touba otoom lay joxe ñu ci ñu jël ko waxtu wuñ ko wax ba lañ ko soxlaal àgg te duñu ci soññ ñu ngi koy ñaanal bu baax. mook sëriñ Modou Mbacke ak mboolem waa Touba gi di sant bu baax it euh, soxna maam Boussa Sarr moom sëñ Basirou Sarr mi nga xam ne moo jiitee jigéen ñi féete Touba taxawaayam rafet na. soxna bu sa Sey moom maam Jibi Sey taxawaayam rafet na ñëw na ànd ak mbooloo euh, mu takku xam naa jataay bee tax duñ ko duñ mën a lim ñëpp. waaye ñu ngi koy sant bu baax it di ko ñaanal yàlla di soññ mboolem waa Njaañ ku koy dégg xam ne euh, ñu ñu mën nañoo di jafe ca moom. di sant waa axlu jamaxa bi nga xam ne moo féete mox mox man maa ngi leen koy seere yéen kilifa yi amuñu seenu cant ku ci mel ne sang ture mi nga xam ne moo nekk sama gannaaw ñu ànd ko liggéey bi rafet na lool ci jigéen ñi soxna maam bu sa jóob di sunu soxna daanaka mën naa ne liggéey bi ci moo ko yor moo soxna Attan Fall ak soxna Kuma Mbaye ak soxna faati Mbakke liggéey bi ba daaw ba léegi noppaluwun taxawal bis bi kon ñu ngi leen ñaanal yéen kilifa yi ngeen ñaanal leen suñu borom dëgëral leen ku jàpp kër gi lan ku jàpp Cheikh Sëriñ Sarr lan ku jàpp euh, Cheikh euh, Cheikh Ibrahima Sarr kon ñu ngi leen di ñaanal euh, liñ ci bëgg suñu borom defal leen ko ñu ngi sant ñëpp daal tey gërëm ñëpp temps bee tax dafa xat waaye liñ bëggoon a leen lépp ku ñàkk bëggoon a ñëw tudd ci tudd ci turam jox ko wàcc waayam waaye bis bi moo xat yëf yi moo demee nii ñu ngi jéggulu ñëpp di wax di ñaan yàlla mi nga xam ne moo man lépp yàlla nañu fa dajale waat déwén kenn bañ a manque ci barke borom jasaaka wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alaadi lamin sayidina muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi shawi ridwan wa tamkin asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi noo ngi leen di nuyu ci turu sëriñ ibrahima xalilu saar mi nga xam ne mooy bopp kër Cheikh Ibrahima kër Cheikh Serigne Sarr muy kàddu yu mu joxoon sëriñ maam Cheikh Ibrahima saar mii mënoon nañ ko jottali ci njaboot gi ak wëllëre yi ak taalibe yi ak xarit yi cant gi nag ka jëkk di suñu kilifa nun ñépp muy sëriñ Sidi Sarr ibnu sëriñ Mut Sarr ibnu Cheikh Ibrahima Sarr Jasaaka di jëmm joo xam ne ku mat a sagoo la ku mat a tiitaroo la ndax dafa nekk ca mbooleem li nga xam ne mooy ndigali yàlla yi di nit ku set di nit ku laab di nit ku ragal yàlla di nit di nit ku bëgg bokk di nit ku ak taalibe neex tam koy bànneexoo muy jëmm joo xam ne jortu naa ne fi ne nii boo moytul wàcc nab lalam tàmbalee jaamu yàlla dañuy wax ne diggante quatre heures ba bi ñuy salaatu dana fi jàng ñaar fukki isi alxuraan ñu soog a dugg ci julli te waxtu wu nekk yaa ngi koy fekk xasida wala alxuraan wala mu yor kurus nekk ca la war ne sëriñ sii di kooko tuddal mu ne koo ko baax mu xamut lu bon rek la xam yàlla taw féexale ko muy sunu kilifa nun ñëpp di juróomi doomi kër Cheikh Ibrahima Sary kon war nañ cee sant war nañ cee am fierté war nañ koo tiitooroo war nañ koo ñaanal mu yàgg fi te liggéeyam bépp dëppoo ngërëmul Serigne Touba ndax bu dëppoo ngërëmul Serigne Touba rek sunu sunu liggéey dëppoo ngërëm suñ ndax moo ñuy boot ku ci boot sa doom dugg ci wota boo paasee kenn du laaj sa doom paas kon moo boot njabootu kër Cheikh Ibrahima Sarr gépp yàlla na yàlla dëgëral taxaayam te wéral ko di leen masaw it yéen bokk yi ndax lii moom duñ ndaw yi sëriñ sii dee leen yebal waaye du ngeen a jóge ca kër ga dikk ci kër gi muy genn kër rek doon naa ko wax ci benn émission rajo bërki démb rek nun sëriñ tuubaa danoo defal loo xam ne jort naa ne bu nu xamee sun bopp mën nañ ne ku dul nun amu ko am lu gën lépp sàggane ko ba wëlbati ko di ko ñaanal ñeneen ñu ngi ko séddoon ak càggante ëppatu ko sëriñ Saliou dafay wax ne bokk na ci mën a jariñu ci sëriñ bi gëm sa bopp ndax boo gëmee sa bopp xam sa bopp te doyloo sëñ bi te bàyyee ko sunu bopp te xam lu nu sëriñ bi boolee lu mu bala noo dugg ci liñ bëgg a développé foofu tuuti ngeen baal nu du gudd yéen daayere bi sëriñ Xalil mi ngi leen di jot li cant ngërëm ndax lii day loo xam ne lu leen waroon a digal la fekkoon fi ngeen sabablu woon ko ci kanamu ay kilifaam ma mat ca seere ndax la ba ngeen koy dox noo ko àndoon yu addiyee jegeen njëkk yóbbu ci sëriñ Moodu Saare yàlla na yàlla dolli ngërëm ci moom ngeen jox ko ko daf koo lem nii tàllal ko di ko tàpp ci loxob càmmooñam ne lii de xeebuma ko rëy na ci man lool neex na ma waaye li may neex neex seen daje gii ngeen àndi ñëw moom ma dàq loolu lépp ne ngeen la waaye na ngeen ma ci tin ba bu ko dara yàq te noom yokk loola nag mel na la yàlla dimbale na leen ci yàlla dimbale na ko ci yi woowee mu ci doon bëgg te bëggal leen ko bëggal nu ko yàlla na ko fekk foofee mu ne nun nag lii defaruk sëriñ Touba defaruk sëriñ Touba sëriñ Touba mu doon lëggéeyanteeg Seex Ibra Saar wala Seex Ibra Saar lim doon lëggéeyal ci sëriñ Touba moom la yàlla taw féexe leen doom yu góor yi mu am yépp wala juróomi doomi góor yiñ ko xemel yépp sëriñ Touba leen yar fa sëriñ tuubaa jaar ak Cheikh Ibra Sarr rek fa la daar ak ñoom fa la jaar ak ñoom ñoo ñii kon dafa mel ni bisu tey bii ak bopp suba bi sànni wenn doj la reyetti picc la sëriñ Mouhamadou Sarr mi nga xam ne mooy taawub Cheikh Ibrahima Sarr keroog bi Cheikh Ibrahima Sarr ne sëriñ Touba kii mooy sama taaw yonent bi laa ko tudd dafa dóor loxoom ci bopp bi jàngatif li ca jàng jàng te fecca mu soog a dem fa daara ja te sëriñ mu Mouhamadou saar moo daan wax ne day keppaaru bamba gii day ku dul bamba yëbbu ma ci sëriñ Modou saar moo daan doxantu ca tool bi ci mbul yor parasolam ngelaw li joowu ko mu sànni ko ne tool bi taw bi ak ngelaw li yëbbu ma lu tool ne ma nekk tool sëñ bamba bu muy tooleel tooyal sama sëriñ waaye baag dox laal ma ci day taw ba sibit ak doq du ko laal te fi bi jaar mi ngi tooy sëriñ Mouhamadou saar moo daan wax ne ku ma bett ak loo xam ne yaakaaruma ko woon ne danga ko indi danaa def ci yow loo xamante ne ku dul sëriñ Bamba mënu koo dindi. sëriñ Modou moo daan wax ne képp ku ma bégal da nga bég te du ma yëg fa nga bége. sëriñ Modou Sarr moo daan wax ne képp ku nar a xonqal sama ba te dootu xonq da fay kamat te dootoo tàkk ba faaw. kon sant nan bokk sant yàlla ba ñuy jéem wut mbégam ci lii te xam ne boole gi nga xamante ne da ngeen defe ne dangeen ngeen koy wutug boole sëriñ Cheikh seen bàyyi Cheikh Ibra Sarr ku njëkkoon a boole sëñ sëñ Mor Sarr ak bàyyi sëñ Sarr mii ngi defal bis bi kon sànni wenn daj la reet la picc ngi ci nanu gën suñu bopp te xam li nu am te xam li ki nu ko may ak li mu doon nun ñëpp dañ ciy tedd ba dee ci buñ jaaree fi ñu war a jaar bala noo sori ci sunu bokk yi li tàmbalee ci dëkk bi ndax yéen a fii la ñu wootee gan ñi wuy si man day bis bu yàlla sàkk bu nekk ci màggal saa bu dikkee damay amaat gàcce ci sama bopp ndax dafay mel ne goog daaw ga goog ren gi def koo gàccaayal kon waroon nañoo gën a takkaat suñu digg gën a laxasaayu te xam liñ lim ñu dolli lu mu doon ndax Sëriñ Tuubaa bu lay dolli doo yëg nam lay doolee yaa ngay yëg ne fa nga nekkoon bokkute fi nga nekk tey du na la seexal naa la du na la sëriñ na la naa la du na la boole naa la ak mbooloo du loo def dara waaye yow yaay dem ba xam ne wala wala nit ñi xam ne yow mii fa nga nekkoon démb bokkate fi nga nekk tey te nun ñi kenn ku nekk mën na ko seede ci noonu. Cheikh Serigne Sarr moom mii nag wax nañ ko waxati ko wax na na dëkk bii de fu waay mën a nekk fu mu mën a doon fekk ko fa fu mu mën a nekk fu mu mën a doon nit fekk ko fa danaan danga faa jaaroon rek waaye ku ma fekk ci mux mux gii. danaa xam ne sama jëmm jii rek la tax a jóg te boo ma wonee ginnaaw ba dem danga xam ne dikkoon nga fi ngir ndax ndax soppi ko njariñ ci yow. wax waxoon ci dëkk bi te doon ko nettali ci mag ñi du ko daan toog fii ci penc mi di ko nettali booba jortu naa ne dëkk bi ab tabax amu fi baa boog mooy mooy gaar beef rek a fi def tabax te ca doon wax naan xul leen taax yee waaye xul leen mbooloo mi ci penc mi mëj mëj mag ñi ko doon nettali ngi fii barki démb kon ndokk bañ ca bokkee te dana woon maanaam li fi nekk te sëriñ Tuubaa dëxaloon ma ko fi bu adduna doonoon ñetti fan te dikku titam dane ak mag da dikk na waaye la ma sëriñ Tuubaa dëxaloon ci ci dëkk bii day gisaguma ci dara waaye bu adduna dosoon ñetti fan it day gëm naa ne lépp dana fi dikk adduna soog fee jóg te ko defut doom defaluma ko ab taalibe defaluma ko ay sët danañ màgg defal ma ko Serigne Touba boole woon juróomi doomi njabootu Cheikh Ibra Sarr gi nee na woon nag li gën a jafe ci adduna moo di bokk ak bokk na bu leen adduna na reeta saare na nga lalu dajale leen ba mu dëgg say nga takk ba mu dëgër ak bokk mooy na nga sa bopp ngir bëgg bokk ga jariñu ak bokk mooy koo xam ne saa boo geesoo gis ko suñ bokk yii gis nga ko ci souffrance bi ñu jógee tey sëriñ bi nee na ña fi jëkkoon weesu woon yett yoo yii moom mu ñëw dolli ci beneen xam ne leen gën a kawe ak bokk mooy koo xam da nga koy ay ñaaw téefam ngir bëgg ñëpp yëkkati ko sëriñ Touba taal bu fi nekk moo ko taal te kenn ku dul sëriñ Touba mënu koo fay te sëriñ Touba du taal di fay. képp koo xamante ne yaa ngi xool sa toolab sëriñ Touba nga di ca jéem leneen loolu yaag sëriñ Touba yi xeex yaag sëriñ Touba yi bëri du yaa waaye du yaa kan koy waxal. nañ delloo suñu bopp ci bi nañ delloo suñu bokk ci bokk nañ delloo suñu bokk ci rafetal ak toppante loolu rek mooy ñuy jariñ tey moo ñuy jariñ ëllëg al haqqu min rabbikum fo man shaa falyuminu wa man shaa falyakfur wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh amin ya allahuma amin allahuma amin Baye Galas Mbàkke moom Seex Ibra moom Sëriñ Fallu moo joxe ñaan gi Mbàkke yàgg nga koo defal yàlla na yàgg sax isaaka yaa xilu yib raayimu mawlaaka xayral jasaa muna daarika awlaaka فاحلم بأنك إن بسور دن أبدا وذاك ربحك في دنيا وخراك فدم على الصدق والإخلاص متعدا في سر والجهر كي kan moo ma sa yaakaar